demee ba mën koo am na ñoo xamante ne ni ñooñu ci jàppale ba tax mu lii taxaw ñooñu nag il faut que bu kilifa yi teewee ñu xamal leen leen ñu sant leen gërëm leen ñaanal leen ndax ñun yéene initiative rek lañu amoon ak xalaat bañ ko xalaatee nag ñu waxtaan ci ak kilifa yi ñu ànd kook ñun ba lii réalisé wu tey ndax ku mel ne docteur Omar Diop di doomu koñ bi moom moo ñu ko xalaatal dimbali ñu ci ndax bañ ko fi njëkkee xalaat boobaak léegi am na ñaari at yàlla def li mu def ci sëriñ bi ñu taxawandali woon ko ba ren ba mu ñëwaatee ci korité gi macha allah ci la ko activé waat boole ñu ak médecin chef de district docteur Babacar juuf nga xamante ne ni moo waroon ñëw présider ko mais yàlla def mu am urgence léegi léegi léegi ba wàññeekuwaat. ndax ñoom ku ne xam na ne amuñu jot fu ñu toll am na ndogal boo xamante ne mën na dal seen kaw loolu tax mu wàññeekuwaat waaye bu fa teelee jóge incha allah dana ñëw fekk si waat ñu fii moom aussi moo coordonné liggéey bi ñu sant ko bu baax gërëm ko képp koo xamante ne ni autorité sanitaire la bu nekk ci dëkk bi rek boole ñëw na boole ñu na ak yow ñu dem fa lépp loo ñu war mën dimbalee nga dimbalee ñu ko ñu leen sant bu baax nag di leen gërëm ci seen teewaay di ci jiital alaaji Moustapha Jaxate mi nga xamante ne tey moo nekk ci bopp famille bi nga xamante ne nii ci ndigalam la lii taxawee ak délégué di quartier bi nga xam ne nii moo fi représenté quartier bi yëpp nga xam ne moo war a dalal kilifa yi fi nga xam ne ñu ngi leen di seenu yëpp ñu ñëw fi ñu sant leen bu baax di leen gërëm ci kon nag ci turu comité d'organisation bi nga xame ne nii Gallo jàlloo moo ko jiite ak ñi mu ci àndal ñëpp ak ñoom Omar Dieye ak ñoom Massiré ñëpp vraiment maa ngi leen di sant di leen gërëm ndax man rek àttanuma lii lépp ñoom ñoo koy def wuutuñu ci lépp taxawal ko ñi nga xamante ne nii nag ñu ngi leen di remercier nga xamante ne yàlla ak seen doole moo tax lii taxaw ñu ngi ciy gërëm ñu mel ne Crédit Mutuel di Sénégal vraiment taxawu nañ ñu dimbali ñu ci contribution boo xamante ne daanaka bañ ko dugalee ci garab yi lépp mat na ki nga xamante ne nii nag moom moo ñu ko toppatool mooy Adja Rose Ndiaye di doomu suñu yaay daara di suñu yaay di ajaa ab sa Niang ñu ngi leen di sant di leen gërëm ak famille Absa Niang yëpp te vraiment taxawu nañ taxawaay boo xamante ne nii daanaka xew mi yëpp buñ neexee mën nañu wax ne ñoom ñoo ko def ñu ngi leen di sant di leen gërëm ci turu daara ji ak ci turu association bi ñi kiñ ciy teg mooy président Abdoulaye Fall di président ETT nga xam ne mooy président Fat Bintou moom ba ñu dooree la yëkkati la ñu li nañu lan ngeen soxla ñu wax ko li ñu soxla yëpp mu yëkkati lu tolloog loolu jox ñu ne ñu dem leen ba pare jël groupe presse am ko suñu disposition ne ñu lépp loo xamante ne soxla ngeen ko ci côté presse ak ci côté communication ñoom dinañ ci taxaw ñu ànd ko ak ñun suba ngoon guddeeg bëccëg dërëm bu gën a tuuti fayeeku ko fayeeku ñu ko ci kon nag ñu sant leen bu baax gërëm leen ñu sant itam directeur de la santé nga xamante ne nii directrice de la santé ci ndimbal docteur Mbay nga xamante ne nii yebal na soxnaam ñu bàyyi ko ba ndar ñëw ànd ak ñun lii vraiment dimbali nañ ci don médicament boo xamante ni ëllëg incha allah moom la ñu war a dimbalikoo pour malaat yi nga xam ne nii ñoo fi ñëw soxnaam soxna Ndey Awa Mbuub mu ngi ni toog ànd ak Adja mooy mun na njaay nga xamante ne moo newoon sama euh, yaayu daara ca ndar ñu jóge ba ndar ñëw teew si fii ñu sant leen bu baax gërëm leen ñu gërëm itam pharmacie nationale d'approvisionnement bu nekk dakaar ñoom itam vraiment jàppale nañ ñu ci wàllu don de médicament ñu sant nag bu baax waa district sanitaire bu dixième ci njiital médecin chef régional médecin chef de districts nga xam ne moo coordonné liggéey bi ñu sant bu baax itam district sanitaire bu Kër Maam Alaaji madam Diaw ak docteur fay ñu sant itam bu baax waa banque de sang ñi nga xamante ni ñu ngi fii ci biir école bi actuellement di couvrir don de sang bi ñu sant itam association euh, bi ñuy tuddee Marie Stopes ñu nekk ba dakaar nga xamante ne ni suba incha allah ñoo fi war a ñëw defal ñu li nga xamante ne nii ñooy ñooy mbirum gynécologie bi ndax am na ay dépistage ak échographie lépp ñoom ñoo ko jël en charge nga xamante ne ni gratuite la. di gërëm aussi côté ophtalmologie ku ñuy wax Abdoulaye Fall réew mi nga xamante ne nii lépp loo xam ne lunette la lu nit ñi di soxla moom moo ko toppatoo andi ko fi te duñu ci fay dërëm ak cabinet jàmmi bët docteur Khadijatou kamara ñoom itam ñu ngi koy gërëm bu baax a baax déplacé wu na ëllëg ñëw fi ak équipe am yëpp ak waa commerce nga xamante ne ñooy médecin yi nekk dakaar ñoom itam yebal nañ fi délégation bu am solo boo xam ne war nañ fi ñëw suba ci do jiital docteur Bamba Diop ñu sant bu baax ki nga xamante ni ne doomu koñ bi la démarché ko ba ñu war a ñëw ñu koy wax Ousin si ñu gën koo xam ci Ousseynou si ñu sant ko bu baax gërëm ko ñu sant itam mouvement étudiant wu cees yi nga xam ne nii ñoo nekk Ibader Thiam démb ba tey ñu ngi ànd ak ñun doonda médicament yi ñu may yëpp ñoom ñoo dem réceptionné ko xool garab yi ñu soxla yëpp ñu ñëw ànd ko ak ñun actuellement nii ñëw nañ ñu ngi ci farmasi bi di defar garab yi vraiment amuñu seen fay ñu seedeel leen ko ñu sant leen gërëm leen bu baax ñu sant itam ñi nga xamante ne nii ay doomi koñ bi lañ wax dëgg yàlla jàpp ci liggéey bi ku mel nekk Lamine Gassama bëggul sax ñuy tudd tëram mais jàppale nañu bu baax a baax a baax Aiglon daal amul buntu kër goo xamante ne nii yëkkatiwuñu ndimbal ànd ko ci daara ji démb ak tey ndax ku lim juum kër yépp amul buntu kër gooy lim Aiglon lu dul ne indi nañu seen ndimbal ci ci kër gi démb ak tey wax dëgg yàlla ñu ngi leen di sant du baax di leen gërëm ñu seedeel ko waa koñ bi yépp ndax bañ ko amee yéene ne dañoo bëgg a defal góor gi hommage dañ ne duñ ko yemale ci góor gi rek waaye nañ ko jël boole ko ak ñëpp ñi nga xamante ne ni ñu ngi woon ci koñ bi yore ay daara jiite jàkka yi di ay aimma ak ay asatisa jiite woon diine ji ba mbir mi agsi ci suñuy loxo tey su ko defee ñu defal leen hommage bu rëy rëy boole leen ak góor gi sant leen bu baax gërëm leen ñaanal leen su ko defee ñu waxtaane leen waxtaane itam mag ñi woon ci koñ bi ak ci gox bi yëpp nga xamante ne ni ay référence lañ ndax mbir mi li ko tax a jóg mooy éducation ak santé xale yi nga xamante ne ni ñoom la ñu organiser lii ñu ne ci daara ji nejoon ci daara yi ñu mën a am repère xam ñi nga xamante ne ñoom la ñu donn tey ci koñ bi ñan la ñu woon ñu xam fi ñuy teg seen tànk loolu moo waral ndaje bi kon nag maa ngi sant bu baax ñi nga xamante ne nawle Serigne Amadou Bay la ñu ñu newoon ci koñ bi yëpp tey seen njaboot ñoom ñëpp ñu ngi nii teew incha allah kilifa yi dinañu agsiwaat ci tur yooyu yëpp. vraiment ñi ñi dimbale ñëpp mënuñu leen lim suñ leen nekkee di leen lim fii du jeex waaye nag yàlla rek moo taxoon ñuy def yàlla xam na ñoom xam na ñu ñu leen di bàyyeeg suñ borom ñu fayal ñu leen. président Thiès en marche ñu koy wax. Euh, ba président ah Idrissa Dia mu nekk président Thiès en marche moom moom nee naa moom ak Xaadim Sàmb lii ñoom lañ ko defal ndax ñun lii ñu ngi koy door a def waaye ñoom weekend bu nee ñu ngi ci lu mel nii donc cees yëpp amal nañ leen njukkal président ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm depuis bañ koy yëkkatee ba tey mu ngi jël Pape Ndiaye délégué ko mu nekk suñu wet lu ñuy soxla yëpp ñu koy dox ak ñun ak Xaadim Sàmb bu président Thiès solidarité ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm daanaka ñi fi nekk ci presse ak wàllu communication yëpp ñoo leen fi àndi nit ku baax ku koo xamante ne nii xam nañ la ngay yëngatu ci lu mel ni jël nañ la boole la ak ñun ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm su ko defee ñuy wax sëñ musafaa ne ko waa Ndar ñoom ñëpp ñëw nañ ñu ngi nii teew suñu sëriñ bi ñu jàngal Cheikh Ahmad Fall Abdoul Hamid moo waroon a ñëw waaye yàlla dafa def yaramam dafa sutante mu yebal délégation bi ñoom ñëpp ñu jóge ndar ñëw teewal ko daara yu mag yi nga xam ne ni ñu ngi leen di dégg ci ndar ñëpp seen sët yaa ngi nii toog daara maam Muhsin Pape Bachir mu ngi nii toog ñëpp xam nañ ko sama diggante ak moom nga xamante ne yaayam mooy caatu maam Muhsin suñu doomu sëriñ nga xamante ne mooy taawam ñoo bokkoon daara ji di jàngandoo tey jii nga xam ne moo ñu fa wuutu ñun ñëpp mooy Cheikh Abdoul Hamid Fall moo ngi nii toog di doomu sëñ Baye Fall di taawam mu ñëw ànd ak Mouhamad Diop bi nga xamante ne moom it sëtu maam Muhsin la ñu ñëw ànd ak Abu Mouhamad Samb ak Pape Bachir Samb nga xam ne ay sët lañu ci maam Bachir Samb ànd itam ak euh, Serigne Hassan Niang nga xamante ne sëtu maam Baye Mbaye la ñoo ñëpp ci lu mooy dimbali population yi ak daara yi daara yi fexe nañ ba daara yi ñu dem recenser leen yëpp utal nañ leen couverture maladie universelle daara yi dem nañu fa ñi ñi recensé ñëpp xam nañ kenn ku ne lan mooy sa jàngoro ci ñi am problème mu bët ñi am problème dermatologie ñi am problème mu euh, dënn ak lu mu mënti doon xale yi dem nañ fa ba recensé leen xam nañu lépp ëllëg incha allah dinañ dem jëli leen li war ci ñoom lépp ñu defal leen ko. couverture maladie universelle bi ñu aussi ñu gërëm waa JICA ONG JICA ñoom ñoo ànd ak waa yi couvrir ko ñu ngi defar dossier yi su paree sëriñ daara bu ne dinañ la jox sa sa sa yëf. ñu sant leen bu baax gërëm leen. di sant yàlla ci jotaay bu baax a baax. aywa di yëkkati kàddu yoo xam ne dina gàtt lool ndax ñi nga xam ne ñooy sunuy magi daara war a def waxtaan bi ñëpp teew lañu ak sunuy yi daara ak sunuy sëriñi daara. Euh, bis bi nag macha allah dañ koy sante borom bi subhaanahu wa taala comme niñ koy waxee du bisu daara ji bisu daara yi la. waaye bisu magi koñ bi la. ndax niñ koy waxee bis bu ne Thierno Ahmad Ba. bi muy dikk fii indaalewu fi kër amu fi kër amu fi njaboot amu fi tool bi muy ñëw àll wala indaale daa xalima téere xam-xam ak ay dongo bi mu dikkee ay mag ñoo ko dalal mag ñi ko dalal nag moo waral lii tey macha ba daara ji sax si fi Thierno Ahmad Ba mi ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Mayeri dëkk bu ñuy wax mbayeri fa la juddoo yaroo fa jànge fa jóge fa nag di wër fépp fu ne xam-xam nga fa mu dem di ko di xeentu ji xam-xam looloo ko indi Cees gii bi muy ñëw Cees ñi ko taxaw na ñëw naam xam-xam a ko taxaw na ñëw pour mottali li nga xam ne mooy xam-xamam ba mu dikkee yi tamit yàlla boole ko ay góor yàlla ci ndigalu sëriñam muy sëriñ Mansour si bal xaw mi mu rëddal ko daara ji jox ko ko rëdd daara ji jox ko ne ko toogal ci daara ji mu nekk fi yàlla boole ko góor gu ñuy wax sëñ Samba boole kook nag ñi nga xam ne ñooy magi koñ bi magi koñ bi yépp nag ñi mu seqaloon daara ji ak ñi mu seqal koñ bi mag ñi dalal ko dalin wu rafet ay ñoom baay Assane Fall baay Malick Jaxate soxna Faat Baro soxna Astou Diop Maneex maam Awa njaago soxna Astou Diop Ndiaga Abdou Karim Diop Serigne Mafal Diop ma Jama Tunkara ak maam Mayram Soumaré ñoom maam Faat Ndiaye soxna ba Cuun ñoom la ko sëriñ Serigne ñoo ñu la ko yàlla loon ñu teewu daara ji ñu woon daara ji nag ñoo tax daara ji sax fi tey comme ni mu ko doon waxee bis bu ne bu ñu waxee mu ne daara ji du sama daara daara waa koñ bi la ndax bi may ñëw fii indaale wu fi loo xam ne moo tax ma war fee toog su ma fi toogee nag mbaaxu magu koñ bi la magu koñ boobu nag ak waa ñi nga xam ñoom la seqaloon daara yi mooy ali bi ñuy def nii tey jii pour delloo leen njikkal waaye yemuñu foofu li nga xam ni mooy mag ñi seenu ndono liñ fi bàyyi nan la ñu def ba wéyal ko moo tax ñu organiser journée bii sëriñ daara li mboxoon duma ci dellu mag ñi li nga xam ne liggéey nañu ko seenu ndono nan la ñu def ba wéyal ko moo gën a tax ñu taxawal bis bii di sant yàlla subhaanahu wa di ñaanal yàlla ñëpp ñi nga xam ne ñooñu nar a wuutu ci wax ji ñooñu jiitu ci daara ji Ousmane Jaxate sunu mag la ci daara ji nekk na ci daara ji lu yàgg yàgg ñu soog cee ñëw magam a ngi nii Moustapha ak ñu ñu ko seqal ñoo njiitu ci daara ji fop donc ñooñu gën a xam Cerno Ahmad Ba ñoom dinañu wax ci li nga xam ne mooy xam-xam li leen tax a ñëw waaye dinañu waxaale ci daara ji ndax ñoom dund nañu ak Cerno Ahmad Ba mais di gërëm sunu frère particulièrement sànq Serigne Daara daf koo xaw a fàtte. waaye xel dafay fattu muy sunu frère Ablaye Dieye ndax taxawaay bi nga xam taxaw na ko ci bés bi di ko ñaanal yàlla yal na ko yàlla sàmm yal na ko yàlla yokk mais di ñaanal particulièrement ñi nga xam ni ñoo séq daara ji sëriñu daara mi ngi ñaanal yépp mais ñoom aussi dañ koy ñaanal ndax ndaw la gis nañu ndaw ñi nga xam dañoo jàngi woon xam-xam lu ci ëpp li ñu xiinte daw nañu wute tele yi ak rajo yi mais moom lu mu wax dafa ne soxlawuma lu dul sama daara jii sama daare baay bii daara waa koñ bii dañoo toog ci buntu kër gi di waxtaan mu ne ma imaam ma ne ko waaw mu ne su ma yàlla naree jox wërsëg wu tax ma bàyyi daara yàlla bu ma am wërsëg waaw dañuy sant yàlla subhaanahu wa taala euh, sëñ Moustapha bi nga xam ne nii macha allah njabootu suñu Seydi Hadji Malick si la teew si na léegi du sunu rakk waaye du suñu sëriñ ci daara ji sunu yaay Habib mi ngi nii toog du ndeyu daara ji tey jii moo uuf daara ji ba daara ji yanqul daara ji daanuwul maasal ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko fi yàlla yàggal aywa góor gi traa ñu koy wax pa tra ñépp xam nañ ni li muy taxaw ci Aiglon day dem ba feebar waaye taxul mu toog day dem ba du mën a taxaw waaye lépp foo gisee bàyyi taraa di dox rek njariñu Aiglon la macha allah moom it yàlla nañ ko yàlla sàmmal sàmm njaboot gi sàmm ñu fi tase ñëpp rek ñu ngi ñaanal yàlla ñëpp rek Thierno Amadou Ba mel na ni day sargal koñ bi yëpp parce que Serigne Amadou Ba attan na ñëpp donc li ma lay ñaan mooy bu ko yamalee ci kër Amadou Ba tàllal ko ci koñ bi yëpp parce que benn la Amadou Ba mooy koñ bi comme bi mooy koñ bi donc bi ma ko waxee loolu ni ko yaatal ko parce que koñ bi famille boo ci tudd yeneen famille yi ci la bokk benn entité la. ba ca topp mooy suñ ko yemalee ci ñun man bu ma waxee daal ni ah waaye usu mënu ca bañ a wax ndax ñoo ko may jabar donc du ñu ñeme te wax nañu dëgg it dak wax dëgg yàlla mais bi ñu commencé ci wax ji li ma ko wax laa koy dëggal ni ko fii koñ boo kër goo fi jaar kilifa fi dëkk wañ nañ ko ba tey jii am na loo xam ne boo ko defee Europe mbaa fa leen dañuy sànni sa lettre may sa sec chez tel tel amul numéro amul téléphone amul dara dañ laan document inutilisable mais ñëwul fii nga taxaw fële ci koñ ba duudu wagee kër la laa ji jóg dañ koy ñëw ci moom parce que dañu xam ni nit boo dëkkee ci koñ ñu xam sa fami waroo fa mën a réer fii ma taxaw mën naa leen wax kër yëpp te numéro amu ci soo commencé foo ma dëkkal alaaj jaxate ngay wax topp ci kër faatu Baro topp ci kër Maneex Seck topp ci kër Thierno Amadou Ba topp ci kër Bada Thiam topp ci kër Iba Diop topp ci kër Dina dem bureau familial kër ma Singom teg ci kër Mor Awa Seck boo dellusee kër Ibrahima Sane ngay jógee teg ci euh, euh, euh, ki teg xaw ma kii tegaat ci kër Mor Awa Seck ñëw boo ñëwee kër Adda Senghor nga ci teg boo teg kër Adda Senghor kër Bande Diène nga ciy teg mën nañ ko topp koñ bu nekk te koo ci wax tu famille ñu xam fa mu nekk fan la donc koñ bi benn la koñ bi benn la bu ñu ciy def dara nanu ko maasale rek te xam ne bu ñu ko maasalee ñëpp dañ ciy laal am na lu ngeen wax léegi mooy affaire importance bi nga xam ne bii daara yi am na ko ci koñ bii du tey boo gisee ko ñu Aiglon ni mu day nga jël nombre de daara yi fi am mën nañu assurer formation waa eglo yëpp parce que boo jógee jël daara kër El Hadj Mansour ñëw ba fii jël daara Thierno boo duggee ba ci biir yaa nga jëm daq jaamu doomu ndar wax na la ko léegi sama mag ji ñëla bi jàkkee mbara amagul xëy na xale yi amuñu ko daara ji kër Alsaan Fall la nekkoon ko ñoom Toto benn naar moo fa doon jàngale soo ko ñëw foofu dinaa ñëwaat léegi ci mosquée yi boo fa jógee nga ñëw jaalo waalo waalo ñetti daara la daara bu njëkk ba mooy kër euh, ki Ablaye Sow fi janoog moom fi ñoom Paul si dëkk muy kër daara Amadou Lamine Sow ca gannaaw doo jaare seen jaan am na sax daara ji nga xam ni ji jàkka ji nga xam ni moo nekk kër Ablaye Sow mais buubu Ndumbe kër géwél joo moom daaf mii di rek di di ci ci kii bi ci ci ci euh, euh, daara maamam moo joxe foofu buubu Ndumbe buubu Ndumbe baabu ab Mbuub papay Abdou Mbuub baamu daaf mais moo joxe jaara joo dagg ci suufam joxe ko ni nga xam bi kër i Niang Iba Niang mii tool turandoo moo dagg ci suufam joxe ko muy daara xam nga ni kookoon def importance bu daara yàgg na fi ay pédagogue yoo xam ne jàngalekatu daara yu wóor lañu ñooñu jàngal boo demee ci Maodo Baal gaañu na ci taayile boo demee ci ki nekkoon kër El Hadj Lamine Sarki gi saw gaañu na Moustapha boo ñëwee effectivement ci euh, jàngu bi Ibrahima Ndiaye mi ñu doon tudd léegi Ali Bodé Dia nga ñëw ci Ibrahima Ndongo Daouda Ba ba ci xale yu ndaw yi ba nga tey jii ci Abdourahmane nga xam ni tradition jàng kër Assane Dramé te gannaaw yooyu yëpp effectivement ay daala yu cosaane lañu kon bi mu rànkewul jàng diine dafa mën a am importance bi ñun jàng xam-xamu lay aussi mosu fi tumaranke école Clémenceau école Route de Mbour ak ban école Aiglon tey cadre yi nga xam ni moom la kii doxe fa lañu jaare fa lañu jàng jàng tubaab ay ay jàngalekat yu mag école école barak Ibakati Ba enseignant la Boubacar Ndiaye papay Koli Ndiaye enseignant la monsieur Niang enseignant la jigéen ñi nga xam ne bii jàngale moom mooy Mamtulaay Jéen mii enseignante bu mag la woon ba ci nijaay bàjjini xale bi ñoom Mareetu Sow ak ñoom effectivement kii Xali Seck ñooñu ñëpp ay jàngalekat yu xarañ lañu te tey jii nii daara yi amee ay jàngalekat yu xarañ ci koñ bi noonu la fi enseignement lay am ay jàngalekat cadre yi fi nekk yëpp muy cadre alxuraan muy cadre lay yëpp yëpp yëpp ci koñ bi lañ ko jëlee. loolu dafa rafet ñu di ko fàttali nit ñi di ko xam parce que boo xamul sa démb doo xam sa tey te soo xamul sa say doo mën a defar sa ëllëg kon bi dafa mëjjël tëdd njaaxaanaay fédération moo fi am famille boobu dugg famille ba ca def fa nga nekk ñun ñi nga xam ne ay sët lañu ak ay doom li ñuy dundee suñuy maam ñoo ko ñoo ko ji wax naa ne léegi adresse su kër yi yooyu yëpp effectivement dafa di loo xam ne nii ci kon bi il faut que ñu di ko fàttali nit ñi ñu xam ban ciment moo ñu téye ban loolu la ñu war a def pour mën a àndandoo pour mën a am solidarité parce que soo amul solidarité amuloo amul amul compréhension amuloo culture di nga def loo xam ne nii effectivement ñàkk xam moo la ko xamadi ngaa xamati te ku xamati mooy da xamul mag ñi nag seen débat mooy di xamal xale yi léwoon démb mooy thème pour mu servir leen de de de modèle. wax naa léegi ci ay grands foyers de formation ak des grands foyers d' activité culturelle ma ni ku dul xale xam nga ni kër Cheikh Diop Ndongo lu ñu ko tuddee woon ONU organisation des nations unies kon bi yëpp fa la daan dese di débattre des grands problèmes mooy ñoom aale ñoom duut si formation idéologique fii loolu yëpp effectivement dafa ni lu fi taxawloo woon lu fi am importance jàng. gëstu xam-xam boo ko mën a jëlee Aiglon ca kanam la jël boo ko jëlee ci alxuraan ñu nga ca kanam soo ko jëlee effectivement ci culture laïque ñoo nga ca ñoo nga ca kanam te taxul effectivement ñu ñàkk xam lan moonu lan moonu boole. léegi Moustapha doon na wax affaire sport effectivement bu dëgg rek taxe jot activité yi amoon importance ba ñuy gën a ne xale football la woon. football yi ñetti équipe ñoo fi amoon Strasbourg résistance ak Brésil ñoom ñoo meññ di weññi di weññi ba agsi tey jii ci forme de ASC yi fi am continuité la loolu dafay bëgg a mën na nit ñu wax ko nit ñi xam ni looy jaay égloo am na njëgam xam-xam boo am la ci am sens kay la ci am importance looloo tax may remercier Abou Ndiaye campagne de santé mais du tey la fi ma saam def nañ fi campagne de santé de chloroquinisation def fi campagne de santé consultation kon bi waaye nag def campagne de santé ba noppi accompagner ko nag d'une réflexion ah kooku c'est original c'est original te loolu Abou Ndiaye moo ko waral wax na léegi ci affaire organisation bi naam defu ko moom rek organisation bi ñëpp la waaye xam na ni organisation yu mel ni surtout bu njëkk ba ña nga xam ne bii ñoo ko ŋànk suñu sacrifié seen bopp du dox bu la mu des si mayee nga ni ñoo ko defandoo xam nga ni boo ci xaru sa tànk tubéy yow dong du dem donc loolu bu amee dañuy rassuré ñun day rassuré waa koñ bi yëpp parce que loo xam ni ay nijaayam sa baay da ko daa def ak bàyyi ñeneen sa nijaay daa ko def ak nijaay ndey ñi sa mag di ko def ak ñeneen ñi ñu geesu gis yow it nga di ko def mais dañuy assuré dañuy dañuy daal suñu xel day daal suñu xel ci continue je crois que loolu lu am importance la Aiglon na ngeen xam seen bopp amul lu ngeen amul amul lu ngeen amul domaine bu nekk am géej ci loo xam ne nii mën ngeen koo teg ci suuf loolu nag boo ko nit amee da koy da koy sàmm sàmm ko nag mooy di ci waxtaan bañ ci am nag préjugé ñu di ci waxtaan ñu di ci waxtaan xale yi xam li fi amoon démb mag ñi xam ni ñu fi ji xale yi ñu ngi koy continuer mais balaa ngaa continuer dara nga xam ko da ngay xam boo xamul du sori loolu laa amoon ni daal tey ji dinaa ko wax tey ci mbooloo mi parce que mënul am lu ñuy def ci koñ bi fii ci Aiglon may dund ba ba mën ca dara te du ma ca bokk waaye nag damay tëdd njaaxaandaay y a toutes les activités ici ci koñ bi toutes les activités. ba ma fay nekk lycée technique laa nekkoon waaye daara joo xam ne loolu ñëpp xamoon dañ ko macha allah kon nag ñu ngi leen di nuyu leen jox seen wàccuwaay tekki nag di nuyu sama maas yi nga xam ne fekk naa leen fii yàlla dogal ñuy dund ni encore muy Habib Fall mii di saari bu saw di Moussa Seck ak ñi nga xam ni peut-être ñëwuñu mënoon nañu site ñu bari lool waaye yàlla dafa dogal ñun ñëw fi mujj yàlla nañ fi sax bu yàq fi yàgg fi lool waaye dama ci am mbegte parce ñëw fekkaat leen fii dama ci sant bu baax di sant waa kër Serigne Amat Ba Thierno Amat Ba di leen sant jële naa cër bi nga xam ne jox lañ ma ko te xam ne mérité wu ma ko waaye ñoom maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen jox seen wàccuwaay Ibrahima Ndiaye mi nga xam ni moo ko sës ci moom mos ko sës ci moom moom i maa ngi nuyu njabootam di leen jox seen wàccuwaay di nag bëgg ni leen place bii day place jëyti lañ koy wax bari nañu ñu baree bare ñoo xam ni ni mu soq ko waaye li ma ci bëgg a wax rek lu tuuti la mooy place bi de dañ fi daan def ay réunion politique ak ay sabar kon tey bu ñu toogee ba fiy def lii war nañoo sant yàlla ñu jël initiative bi di ko def di sant di jox leen wàccuwaay jigéen ñi nga xam ni ñoom nag ñoo rafetal tànt bi dëgg-dëgg parce que lépp loo xam ni bokkuñu ca day du mën a sotti kon nag ñoom tamit ñu ngi leen di wax seen wàccuwaay di leen sant bu baax ci nga xam ni seen participation ak seen lépp di bëgg a wax noog dellu si place bi donc maa ngi doon wax léegi ni place bi dañ fi daan fecc ak i sabar ak i fanaal di ko fi fente moo tudd nag moo tax ko doon wax place Jéyti waaye day lii nga xam ni Abdourahmane def na ko jóge ci daara sëñ mbat ba bii ah yóbbu na ko foo xam ni kawe na lool ndaxte daara ji nga xam ne man fa laa jëkk a duggee alxuraan mooy daara kër bàyyi kii toog mu chef de quartier bi ñu ko wax Alaaji Alasaan moo wutoon booba avant Serigne Amath ba ñëw fii benn naar bu mu jëli mooy tani indi ko mu ñuy jàngal ñu ko dox Serigne Amath Fall moom de moo fi ñëwoon di ñuy jàngal ci boor bi jaari sëñ Ablaye Sow ngi fi woon jaari kër sëñ Dramé ak Pamal xam naa ni après ki nga xam ni moo jël lool dina ca wax dina ca wax waaye dama bëgg rek dëggal ni lii nga xam ni waa kër Serigne Ahmad Ba def nañ ko continuation la parce que ñun koñ bi initiative yi dafa mës a bari maa ko jëlee ci parti sport bi lañu gënoon association am na fi ay sport am na fi lépp développé nañ ko ci koñ bi ba mu dem ba nga xam ni amoon nañ fi benn grande nuit bu ñu daan def tuddee ko te fii la soxee ko ci koñ bi waaye nag dimension sportive la amoon boole ci encore acting mais ak dimension éducation parce que ci koñ bi toujours ay cours de vacances chaque année daf fi daan am ñi nga xam ne jotoon nañu am un certain niveau ñooy dellu si jël di piloté xale koñ bi résultat bi gis nañ ko on a de docteurs des professeurs agrégés on a des professeurs d'université on a des, des ingénieurs on a pas mal loolu nag ñoom ñu nga xam ne ñoo daan initier ci ay cours de vacances ñëw ñi demoon dañu dimbali ñooñu lañ koy wàcceel je du ab kii Pafal naan la ñoom Dur Sine ñoom it Masmoud ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu ngi ci biir ñi nga xam ne jël nañu boobu parti dañ ko gën a approfondir donc ñoom jaaga ndaw ñoom ñëpp ci biir ku nekk rek ci koñ bi cherche nga rehausser koñ bi ci rehausser boo xam ni ñëpp xamoon nañ ni. parti sport bi demoon nañu ba nga xam ni ñëpp xamoon nañu Strasbourg xamoon nañu ci tegu muy am dedem démembrement li ci gën a rafet mooy xale yi ku ci nekk rek mag mu dem rek ña ca des jël le relais daal di ci nekk di def kon nag loolu laa bëggoon boobu parenthèse benn bi nag mooy remercier waa Daaro Sëriñ Amat Ba mën nañoo yor seen bopp de Sëriñ Amat Ba ku ne xam na ko macha allah man nag sama baay la woon parce que mook sama baay la woon sama xarit la woon parce que sama sëriñ la woon biñ jógee ci daara kër Alsaan Fall foofa la ñu dem man sama mag Lamine Jaxate Ibrahima Ndiaye mi nga xam ni ça fait partie mooy taalibe bi jëkk ci sëriñ bi ba sëñ Amar ba dañuy piroté boole ñuy dem école di jàngi bu ñu wàccee ñëw ci daara ji di jàng kon nag ku ne xam na sëriñ Amar ba ca xam-xam bu sedd ma surtout li nga xam ne moom la ñu gën a jël ci sama euh, sëriñ Amath Ba mooy doyle ko dara du ko tax mu def loo xam ni dinañ ko ko waxi ëllëg ak xam-xam ba wax nañ fi léegi sëñ Amath Gueye ñoo ñëpp biñ fi nekkee fii macha allah xamoon nañ ko di def lu baax teg ñu ci yoon woo xam ni léegi nag bu fekkee ne Abdourahmane ñëw na dolli ci beneen dimension muy dimension santé dafa ko yokk rek te ko lii moom kontaan nañ ci lool parce que léegi ginnaaw loolu am na beneen affaire boo xam ni xew na ci biir moo di léegi ku ne xam na ni daara yi dañoo bokk ci mbir mi bu njëkk ba de dañ nekkoon ñu naan sëriñ bi na nekk ca kii ba mais léegi daara yi daara yi dañoo bokk ci mbir mi war ngeen gis du lii rek firnde na ko waaye gis ngeen Sénégal gii li ci xew léegi ku ne gis na ni actuellement ku ne xam na ni daara yi bakk nañ ci mbir mi kon nag lii Abdourahmane def dafa gën a dëggal loola wan ni rek Sénégal daara yi dañ cee am yoon dañ ci am walla dañ ci am place te bu ñu leen ci boolee boolee ak lañ doon def dara day gën a avancé te yàlla doolu ñu suutar defal ñu ko ñëpp maa ngi sant ñëpp bu baax a baax a baax a baax a baax maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan sama borom lii yàlla na ko yàlla saxal te yàlla na ko yàlla def di nuyu ñëpp di sant ñëpp di nuy ñëpp di sent ñëpp di ñaan lii yàlla ko yàlla barkeel. tey système éducatif yi ci àddina bi boo jëloon tey jëlal Sénégal gi rek boo demoon ministère de l' éducation nga leen lan mooy suñu finalité ci suñu njàng dañ la naan former bon citoyen waaw daanaka réew moo ji dem dañ la naan former un bon citoyen ku dëkk ci réew mi. ku dëkk ci réew mi baax ci réew mi amal njariñ réew mi kooku lañ bëgg a former ci système bi lislaam nag buy yar moom daanaan naan al insaanu saalix nit ku baax lislaam bu yar nit ku baax lay yar mais du yar un bon citoyen nit ku baax bokkul ak un bon citoyen en bon citoyen mën naa bañ doon nit ku baax léegi sax gars yi avancé nañ ba wax ni un citoyen du monde ndax li tax mun li tax ma ni citoyen bu baax bokkul ak nit ku baax nit ku baax moo gën a yaatu man nga fekk benn français boo xam ni français yi jàpp nañ ni citoyen bu baax la defal koy décoration mu ñëw suñu réew mii bu ñëwee musiba la fi def nu muy fexee ba nootee réew mi nu muy fexee ba jël baax yu baax yi ci réew mi nu muy fexee ba waa réew mi mu jaar ci seen kaw am lim fi mën a am yóbbu ko France wala mu yóbbu ko feneen kooku c'est bon citoyen mais du du du nit ku baax l'islam nag lool ki muy yar fu mu mën a nekk dafay sóoraale lool ndax day jàpp ni moom citoyen du monde day jàpp ni li muy def da koy def ngir borom bi subhanahu wa moo koy sëpp moo koy atte ëllëg su ko defee li mu ñimewul def fii Sénégal bu demee France du ko ñemee def bu demee États-Unis du ko ñimee def bu demee Japon du ko du ko ñimee def kon lislaam yaram loolu la wuuteeg beneen yar yarub lislaam nag dafa am yoo xamante ni ci lay sukkandiku ca daara yi loolu la doon jéem a la jéem a samp mooy d'abord day fexe ba milieu bi bi muy yare mu nekk milieu boo xamante ni yar mën na faa yomb doyen Ousmane maa ngi ko dégg li mu ni boo dëkkee Aiglon ci famille nga bokk am na yoo xam boo demee feneen ñimewoo ko parce que da jàpp ni da yaa ngi bàyyi xel sa fami l'islam loolu lay xalaat boo xoolee Seyda Mariam radiyallahu anha ba yàlla defee mu ëmb jaa ëmb ba jaaxal ay bokkam luñ ko wax yaa uxta haaruun abu kaana abuki imraa sawin wa maa kaanat ummuki baxiya dañ ko delloo ci ñetti référence delloo ko ci frère am eh, càmmeñam delloo ko ci baayam delloo ko ci yaayam ni ko ñii de ñoo la séq te xamuñu ci ñoom kenn lu jaarul yoon kon say bokk bokk yu baax nga kon nit ki ba buñ koy yar bokk na ci wutal ko ay bokk yu baax moo tax lislaam ba mu la naan booy wut soxna na nga seet ku am diine booy wut boroom kër na nga xool ku am diine pour que bu ëllëgee mu nekk référence boo xamante ni wóor na ni kii kat des na mën a sukkandiku ci moom kon milieu bi am na ci solo beneen bi ci yarul islaam bokk na ci mooy pas-pas maa naxala waalidun waladahu afdala min adabin xasan yonent bi nee na bàyyi defalul doom lu gën mu yar ko yar bu rafet yar bu rafet nag mooy mu jox ko pas-pasu diine bu leer mu gëm yàlla xam li muy def xam fi muy teg tànkam beneen bi ci tegu mooy asabr yar bi islaam di yar dafa laaj muñ moo tax boo ñemee ci mu mudassir ba yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ko wali rabbika fasbir na nga muñ te yàlla rek tax maanaam kon booy ja booy yar nit dafa laaj nga yar ko ci muñ maa ngi dégg léegi ñuy wax ni Thierno Amadou Ba ku doylu woon la ku sukkandiku woon la ci man am amam loolu li la koy may mooy nga mën a muñ dañu wax ni as sabru ala wa sabru muñ dangay gis lu naqari nga muñ ko ba def liñ la sant dangay muñ lu neex muñ teg ko fa ba def liñ la sant su ko defee kon yar bi lislaam yar da koy teg da koy teg ci muñ waaye da koy teg aussi ci ci sukkandiku ci sa bopp liggéey ak sukkandiku ci sa bopp yonent bi salaam waxoon nañ ni inna allaha yuhibbul abdal muxtarif yàlla bëgg na jaam boo xamante ni daa am métier waaye itam al yadul ulya xayrun min al yadi sufla waxoon nañu ni kiy joxe moo ko gënal kiy laaj pour wan ni daara ji bi muy jàngale dafay jàngal nit ki mooy métier waaye da koy jàngal tam mu mën a sukkandiku ci boppam da koy jàngal mu nekk koo xamante ni du nekk di kuy tàllal waaye bokk na ci principe mooy al izzatu maanaam dignité maanaam yar bi lislaam di yar dafay nekk yar boo xamante ni nii nit ki dafa nekk ku diñ ku respecté boppam ku sukkandiku ci boppam mu mel ni kon daara yi fi nekkoon ak sëriñ daara yi fi nekkoon démb loolu lañ doon jàngale nit ñu gëm borom bi subhaanahu wa taala nit ñu sukkandiku ci seen bopp nit ñu am dignité ay nit ñoo xamante ñi ni ah, ñoom seen milieu bi ñu nekk ku fa ñëw du leen yàpp ku fa du leen xeeb ndax nekkin wu jaar yoon lañ fay nekk mu mel ni kon question bi ñu doon posé léegi mooy ayu tanzimin tarbawiyin li tarsiixi amalil aba aw mirasil aba ayu tanzimin tarbawiyin لترسيخ ميراث الآباء quelle organisation éducative pour perpétuer le legs des pères fondateurs maanaam suñu bàyyi yi fi nekkoon ba samp fi daara ji nan lañu ma def ba daara ji sax fi meññeentam di continuer di wéy di jariñ askan wi di jariñ réew mi di jariñ xeet man yi man defe naa benn benn réponse rek laay jéem laay ci jéem a tontu réponse bi al imam ali radiallahu moo ko waxoon moo ni ñu won laa taqsiru aw awlaadakum ala fa innahum wulidu li zamanin gayri zamanikum ma kon loolu imam ali waxoon comme orientation defe naa ni buñ ci sukkandikoo mën nañoo jéem a woon tontu nan lañuy def ba li fi yi bàyyi woon bàyyi bàyyi ko foon ñu mën koo continuer mu jëm ci kanam imaam Ali dafa waxoon ni jëfan ni ngeen jëfandikoo yéen jumtukaay yi ngeen jëfandikoo bu leen ko imposer seeni doom ndax ñoom seen jamono bokkul ak yéen seen jamono jamonoy doom yi bokkul ak jamonoy bàyyi jamonoy sët yi bokkul ak jamonoy maam yi kon jumtukaay yi ngeen di jëfandikoo bu leen ko imposé seenu njaboot ndax jam seen jamono bokkul ak yéen seen jamono mu mel loolu suñ ko bëggee xool mooy yarub lislaam valeurs yi principes yi sont immuables valeurs yi ak principe yi du changer lu àddina àddina avancé avancé valeurs yi ak principes lenn la liy changé kay mooy jumtukaay liy changé kay mooy moyens mais changement moyen ak changement jumtukaay du problème suñ ko xàmmee rek yenn saa yi dañ ko dul xàmmee daara ji man bi may nekk xale di fi romb ay néegi ñax ñoo fi nekkoon daara ji àlluwa lañ daan jànge daara ji ay der lañ daan laal wala ay basan daara ji daa lañ daan bind loolu loolu loolu loolu ay moyen la boo ñëwee tey fekk daara ji ñu tabax ko dara changé wul bu fekkee loolu bâtiment bi moo changé loolu ma loolu la boo ñëwee fekk ñu def ay table banc changé wul boo ñëwee fekk ñuy binde craie walla ñuy bindee encre wala ñuy bind ay bic changé wul kon loolu suñ ko xàmmee suñu xàmmee loolu xam ni valeur yaa ngi fi valeur yi mooy fexe ba pas-pas bi leer valeur yi mooy fexe ba nit ki nekk ku diiñ valeur yi mooy fexe ba nit ki pas-pasam ci borom bi subhanahu wa taala jub valeur yi mooy fexe ba nit ki sukkandiku ci boppam di bañ a tàllal loxo fexe ba nekk nit koo xamante nii du tooñ respecté dëkkandoom man yooyu bu lee bu fekkee mi ngi ci daara ji daara ji kon mi ngi continuer mais nag mënuñu ni mukk nag ni daara ji nay jëfandikoo wat àlluwa parce que développement moo war lool damay développement moo war ni mooy wone ni àlluwa ji man na fee jóge leneen ñëw tableau ñëw ardoise boo xamante ni soo bindee boo xëccee tournée mu mu effacé mën na fee ñëw biig mën na fee ñëw leen mën na fee ñëw man léeg-léeg ma dégg ma dégg sama mbokk yi ne ci daara yi ñuy insister ci ci daa ci daa ji ma nii mais même ñu doon jàng français bu njëkk daal lañ daan utiliser ñun ñii bi ñu nekk école élémentaire bi daan jàng encre dañ daan togg encre di ko jëfandikoo jamono moo ko laajoon waaye bu ñu demee ba tey ñu gis ni mën naa jëfandikoo leneen loo xam ne tax nit ki mokkal alquran ci ni mu gën a gaawee xam alquran ci ni mu gën a gaawe gëm alquran ci ay tegtali ji nekk ci ni mu gën a gaawe ma ñu loolu daara bañu ko daara ma da koy jël na fexe rek ba ba liggéey bi jëm ci kanam kon loolaa jàpp ni moom loolu mooy bu ñu ko gisee noonu moo tax li Ibra Abdourahmane def nii man noo ma jàpp ni lu rafet a rafet la su ma rombee fii gis muy muy muy nga dugg ci bi ngi gis muy ay classe nga dugg ci bi gis gis fi ay table banc nga dugg ci biir gis ay téere xale yi mën a yor ay téere loolu développement la loolu dafa ànd ak daara léeg-léeg ma discuter sama mbokk yi jàngalekat ñu ni bu njëkk de dañ daan niñ daan ijjee dañoo bëgg a changer ijjin wi bu njëkk da ci daara ji ñu ni la siin su wow siin su tooy taatànk raazayin alkubeer alsaxeer ma loolu loolu ay ay ay ay jëfandikukaay la woon ay ay outil la woon fakk ci jamono jooju doon na jafe ci jàngalekat bi mu prononcer lettres yi correctement ba xale bi mën koo dégg man koo change man mën koo bind su ko defee loolu ay ay ay ay ay jëfandiku pe outil didactique la woon waaw su ma ñëwee man mënumaa bu njëkk mënumaa def différence sama maam mënul différent entre sa ak cha ak za ak za ak za bu ñëwee ni ma bu ma nee siin su bu nee siin ni siin su mooy diggante sa ak cha bu ma taa ak taa mooy diggante ta ak to mais man boo ko waxee léegi xale bi xam na nga ñëw fii fekk benn alpulaar di jàngale daal ni nga ni ko isa zulzilati mu ni ija juljilati nga olof bi ni la isa sulsilati ñun loolu lañ koy wax samam luxa bi ci lañ di dugg maanaam nit ki saa yu déggee son boo xam ne amul ci lakkam nga koy transféré ci son bi gën a jege ci làkkam waaw ah, yow yaay jàngal yaay sëriñ daara bi ngay jàngale xale olof bi nga ni ko isa nga ni ko isa mu ni isa xale pulaar bi nga ni ko isa mu ni ija parce que da koy transféré ci làkkam boo demee na ba loolu question boobu nga réglé ko réglé nga question ça question ça amatoo besoin te na maam daan jëfandikoo amatoo besoin di wax xale bi taa tànk amatoo besoin di wax xale bi taa tomb amatoo besoin di wax xale bi siin su wow amatoo besoin di wax xale bi rase yin soo soo soo rek dina xam ban nga wax waaw su ko laa jàpp ni bu fekkente ni dañoo bàyyi yële jël yi néewul ni dañoo bàyyi li maam doon jëfandikoo développement moo koy waaw dama ni maam daf daan ñëw di war mbaam mos naa ko sama benn sama benn sama benn frère dañoo dem suñu village may def foofu benn conférence ñu toog ci fi ñu defee conférence bi mu jóg jógee tool indi kaat kaatam ñu tool laa jóge après di ma laaj ma ko léegi ñu ne ko suñu baay yi daan dem dañ daan dox mbaa ñu war mbaam dem ci tool yi nga jóge léegi yow mën nga faa demee oto du problème oto bi nga yor wàññiwul dara ci valeuru mbaam yi ñu daan war wàññiwul valeur dara ci valeuru fas yi ñu daan war mais développement moo ko indi développement moo indi ñu man a war mbaam war a war am 4x4 wala am oto dem tool su ko defee loolu daara aussi loolu lay laaj am na ci yoo xam ni boo ñëwee fekkoo ko ci daara ji xoolal ndax lii valeurs yi ñoo changé est-ce que principe yi ñoo sangé walla moyens yi lañu la ñu changé outil outil didactique yi su ko defee lu laa jàpp ni suñ koy bàyyi xel ci daara ji bu kenn ñëw fekk Abdourahman mu yore table ban nga ni góor gi Ahmad Ba daawul jàngalee table ban Abdourahman dafa suppi changé wul outil yi ñoo changé ci dafa war a changé su ko defee laa jàpp ni loolu mooy mooy mooy question bi nan la ñuy mën a def ba daara ji man a wéy di wuyu li li jamonoy doxee man damay jox exemple école franco arabe bi bilaal bi ñu koy suñu bàyyi yu koy boon xam nga lu ñu waxoon ustaas góor ustaas Malick Ndiaye daf ni réew mi dafa nekk dañoo nekk ñaari ñaari antité ñii jàng diine te xamuñu ji làkk wi officiel u réew mi ñiy jàng làkk officiel u réew mi ci jànguñu diine ñu nekk deux lignes parallèles muy deux lignes parallèles li jàng mooy duñ daje mukk te loolu wërta am duñ duñ daje te dañoo war a daje kon loolu moo taxoon ñu ni fi franco arabe mën a am imam boo xam ni bu médecin boo xam ni boo ko ne demal jiite mu dem jiite ji ingénieur boo xam demal jiite ji mu dem jiite ji imaam boo xamante nii boo ko nee demal faji hôpital mu dem faji hôpital su ko defee loolu mooy mooy indi lii am dafa ànd ak lislaam noonu la mus a doxee ñun yenn saa suñuy man suñuy man suñuy man-man ak suñuy moyen moo leen tàqale woon waaye boo doon xool boo defoon tey boo demoon tey nga xool histoire lislaam nga dem Qurtuba nga dem Azhar nga dem Qarawiyin nga dem Xayrawaan les anciennes universités soo fa demee dangay gis ni ki jàngale jàngalee ak ki jàngale jàngalee ak ki jàngale jàngalee usul ak ki daan jàngale alxuraan ñoo bokk ñu ne yenn saa yi sax kenn kee koy jàngale waaw su ko defee kon lislaam musula tàqale xam-xamub lislaam ak xam-xamu xamub àddina benn la yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam dañoo waxoon ni man araada dunia man araada dunia fa alayhi bil ilm wa man araada al fa alayhi bil wa man araadahuma maan fa alayhi bil soo bëggee àddina demal wuti xam-xam soo bëggee àllaaxira demal wuti xam soo bëggee àddina demal wuti xam-xam waaye ñu bàyyi xel ni xam-xam biy joxe àddina bokkul ak bi joxe àllaaxira ñun foofu lañ ñu naxe ñun julit dama ni ñu ngi nii toog fii caméra yi ventilateur bi tànt bi dama ni lan moo ko joxe du xam-xamu àdduna suñu ko wuti wulal ndax nañ mën toog fii di di di di di wax waxtaan bi kon dañ koo soxla dañoo soxla ay avion dañoo soxla ay char de combat boo xoolee bu ñu waxee algèbre algèbre ñi jàng français xam nañ ko def mathématique mais algèbre du tur du tur du la aljaabir la waa ji ko waa ji waa ji ko découvrir c'est un musulman aljaabir moo ko tudd tubaab yi ak ñeneen jël ko ci moom ni ko di wax algèbre donc boo doon xool même chiffres yi ñu nii bu ma ku ma bind woon un deux trois nga bind li ngay bind fii lii loolu ah li jullit yee ko génn tubaab yi génne wuñu ko c'est des chiffres arabes arabes yi léegi ñu ay chiffres indiens la su ko defee loolu mooy woy ne kon lislaam dafa mus a boole xam-xamub diine ak xam-xamub àddina ñoom ñaar ñoo ànd yonent bi waxoon ne alxikmatu daalatul mu'min anna wajadaha fa huwa awlaa xam-xam xereñte man-man jul jullite ko moom fu mu ko fekk rek moo ci gën a yey kon su ko defee daara yi pour ñu mën a dem ca kanam xam-xam yi ñoo ngi fi waaye moyens yi ñu koy jëfandikoo pour am xam-xam boo ci am ca mu gën a gaaw baax na yaakaar naa tey ñun ñëpp xam nañ ni bu njëkk oustaz gi sama sama sama sama wet miinante wuñ lool waaye dégg naa ko ci Ibrahima eh, Abdourahman wóor na ni ñun fii da gis la da ngay bind téereem nax ñu lemal jaamal téere sàngam ñu demal place sàngam téere sàngam ñu demal place sàngam léegi sa portable nga yor benn benn masalam fiq rek mën na la cee të nga ubbi ko gis téere bi laaj ko mu moon moon la ko su ko defee loolu outils yi ñu jëfandikoo ko yàqul dara ci daara yi dem école yi dem njàng mi dem l'essentiel na kenn ku ne bàyyi xel nag ni yaa di les valeurs les principes foofu la ñu wuuteeg njàngum occidental wala seeni valeur da gis na boo demoon tey dañ naan le pragmatisme nu mu lay wax dañ la dara dara ci valeur yi saxul mun na changer loolu tax ñun nag ci lislaam lay ñu ah kay les valeurs sont immuables valeurs yi du changer loolu tax ñoom bërki démb ñu jàpp ni góor jigéen dof la dañ ko war a faj tey ñu jàpp ni góor jigéen dañ ko war a tàcc parce que seeni valeur dafa dee day changer ñun nag du islam suñuy valeur duy changer valeurs yi du changé mais outils yi moyens yi doxalin yi dañuy changé loolu bu ñu ko xàmmee rek boo ñëwee ci daara ji fekk ñu changé outils yi changé moyen yi changé doxalin yi doo sikk borom daara l'essentiel fa nga koy jotee mooy na nga ko xool ci valeurs yi su ko defee ko dafa mel ni tontu boobu lañ jàpp ne bu ñu ko bàyyee xel dina tax li maam doon def ñu mën koo téye waaye itam dëppale ko ak jamono. daara mën a déglu mën a dékku njàngum français daara mën a dékku njàngum métier mën a nekk daara mos a tàggoo njàngum métier dañ daan jàngi métier dañ daan def ci daara yi man dama naan dem daar dama naan dem jàngi dem tool par nawet dañaa dem tool dem ci àll bi taxani parce que nit doomu aadama suñu bàyyiwul xel ni dafa am ñetti dimension dafa am li ñu wax la dimension cognitive li muy xam am beneen dimension boo xamante ni mooy aljaanibul wujdaani yi mooy li muy yëg di ko gëm am beneen domaine bi nga xamante ni mooy li muy man di nga savoir le savoir faire et le nit ki doomu aadama bi doomu aadama xam-xam rek doyul ci moom daa war a xam li muy xam suppaliku yëg-yëg pas-pas li muy yëg suppaliku pas-pas suppaliku man-man bu fekkee nag da ngay jàngal xale bi ci daara ci ñett yooyu jëloo ko en charge da ngay am jafe-jafe dinaa koy wax souvent sëriñ daara yi daara daara internat yi ma leen su benn xale ñëwee nga jàngaloo ko alxuraan kese mënta mënta mënta même mën mënta sax da dem football na xale bi football bu footballee ci ngay xool ndax xale bu soxor la wala bu soxorul la ndax kuy nangu defet la wala ku nanguwul defet la bu fooleeg ay moroomam nga gis mu leen di gaañ nga nu ko eh lii bokk ci buñ ko gañee mu mer nga nu ko déet tey da ngay gañe suba ñu gañe la su ko defee yooyu ay jikko la yoo xam ne soo ko soo ko jëmbatul ci xale bi soo amul occasion boo ko jëmbatee bu ëllëgee xale bi day màggaale ak coxor day màggaale ak tayel mokkal alxuraan rek doyu ci moom lay wax ci daaray jigéen ñi mañ leen bu ngeen defee daara internat pour jigéen xale bu jigéen ba mu nekkee internat da ngeen fexe ba muy fóotal boppam ay yéreem parce que dafa war am jigéen su mën la fóot mën la togg mën la rendre service mokkal alxuraan rek doyu ci su ko defee loolu dañ bëgg jàpp ko ni daara yi mun nay nekk la mu nekkoon waaye matériel outil yu bees yi ñu yor ñu mën koo jëfandikoo nañ ko adapté rek ba mu dëppoo ak daara su ko defee laa jàpp ni suñ ko bàyyee xel yu yu innovation yi ñuy def mën naa nekk te du changer dara ci suñuy valeur mën naa nekk te du changer dara suñuy principe mais ay moyens ñoo changé ay démarches moo ñoo changé ay stratégie ñoo changé loolu l'islam dàq ko lislaam changé wul dàqi moyen changé yi moyen changé stratégie changé changé démarche waaye nag valeurs yi ak principe yi nañu ko nañu ko nañ ko nañ ko nañ ko préserver loolaa jàpp ni incha allah buñ ko bàyyee xel réponse yi mën naa mën naa jafe mën naa yomb li fi maam yi defoon te mooy jàngale alquran ñu mokkal ko jàngale alquran ñu gëm ko jàngale alquran ñu jëfe ko loolu na fi sax defin wi nag mënees na ko changé doxalin wi mënees na ko changé internat mën naa nekk waaye na bu internat bi nekkit buñ ne parent bi day fay xale bi doon buur parent bi day fay xale bi doon buur du amul benn activité manuelle bu muy def amul benn activité sociale bu muy def su génnee ci daara ji alxuraani kese dong lay yor ca am yambar lay doon te lislaam bëggul ab bëggul a yarum yambar yonent day waxoon dafa bëgg nit ku am métier nit ku am jikko xayru naasi anfaahum li naas nit koo xam ne bu génnee day amal société bi njariñ waaw bu fekkee danga ko bàyyi ci daara ji nag ñëpp di ko jariñ du jariñ kenn bu génnee du amal société bi njariñ su ko defee kon loolu bëggoon naa ko wax ñu koy bàyyi xel ci daara yi di ko bàyyi xel ci njàng mi di di yemale foofu kàddu gi di ñaanal suñu mbokk Abdourahman yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér yàlla na yàlla dimbali ko ci daara ji di sant ñi fi neew teew ñëpp di jéggulu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu ku ci ne ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak ci sa sant rafetlu nag taxawaay bi ndax jamono ji ñu nekk nii dafa nekk jamono ju xaw a jaax nit ñi xaw a jaaxle te nit su jaaxlee day dellu ci fa mu xam ne moom la xam daara moo ñu muccloo woon bañ ko bàyyee ginnaaw dëkk bi kenn xamatul xàmmeetul ku mën ak ku xamul ñi daan wax mooy ñi amoon xam-xam léegi ku mën a yor sa téléphone mën ngaa wax lu la neex su la neexee sax taal dëkk bi moo daara ji am solo lool lool lool ñu kontaan ci taxawaay bi nga xamante ne xale yi am nañ ko bay fàttaliku mag ñi loolu dafa am solo déglu nañ conférence bi di wax importance su xam-xam xam-xam dafa am solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne demal wuti xam ba mu dem ba ba jaral na la wuti xam-xam ba chiine te xam-xam boobu mu doon wax Chine du xam-xamu alxuraan waaye xam-xamu àddina la woon ndax Chine booba am nañ xam-xamu àddina. waaye si yonent bi salaahu salaam daf ko doon ñaax nit ñi kon moo tax ba ma dégloo léegi oustaz imaam ñu daal di kontaan bu baax ci loolu mu wax di gën a yeewaat xale yi ñuy gën a dellu ci xam-xam gën a dellu ci ci li nga xam ne mooy daara ji ndax daara ji moom moo ñuy su njëkkee ci xale bi rek leneen lu fi ñëw du ko yóbbu di nuyu nag sama jigéen sama goro soxna Maguette Ndeye Maguette Thiaw mi nga xam ne moom laa fekk fii fii kon du ma fi gan ndax samay goro ñu ngi fi fii lañ ma mayee jabar ci koñ bi kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di sant bu baax ki nga xamante ne ñoo def organisation bi di leen ñaax ñu continuer ndax lii mooy indi ëllëg jamono ji xale yii nga xam ne ñoo ñu nekk fii kenn du leen këf ëllëg maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm wasalaam. nee ñi ngi ziyaara mbokk yi fi teew yëpp. asalaamaaleykum wa rahmatullah. di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. kaddu yi nag kaddu yu gàtt lay doon. ne kaddu yi incha allahu taala kaddu yu gàtt lay doon. ndax Serigne Moustapha. ndax Seydi Mouhamadou Moustapha Diop. kaddu xalifa bi. kaddu xalifa bi. ak taalibeem rakkam di Serigne Maodo. ak taalibeem rakkam di Cheikh El Hadji Malick Sy Maodo. seen kaddu yëpp ak kaddu Tiwaawan. seen kaddu yëpp. ak kàddu Tiwaawan moo ngi ci loxoom. moo ngi ci loxoom. waaye bu ma joxee ndigal. waaye bu ma joxee ndigal nag. danaa sañ wax tuuti. danaa saña wax tuuti. soo ko jox kàddu gi mu soo ko jox kàddu gi nag mu yeggale. Euh, sànq am na benn ku doon waxtaan dama xamul kan la. ne am na ku doon waxtaan léegi tabaarakallaahu. wax ci wàllu tarbiya. docteur Talla Mbengue. docteur Talla Mbengue. maa ngi ko doon déglu bu baax. léegi rek mi ngi ko doon déglu ba di ñu ko déey. waxtaan bi nee waxtaan bi am na solo lool. naan ñoom Thierno nee xam naa ñoom Thierno Ahmed. ñu mënoon fexe def ko ay brochure. bu ñu mënoon a fexe def ko ay dossier def ko brochure. def ko brochure. ñu def ko français. ñu def ko français. anglais anglais ba arab. ba arab. séddale ko ci daara yi dana am solo trop. ndaxte l'éducation. ndax l'éducation. ki toog di jàngale. ki toog di jàngale. dañ ko war a préparer. dañ koo war a préparer. man l'éducation laa def sama taxasus. moom mi l'éducation la def mooy. sama taxasus taxasusam. Euh, moo tax waxtaan bi dugg ma moo tax waxtaan bi professeur doon waxtaan léegi dugg na ko lool. ndax xale bi ñuy yar. nee xale bi ñuy yar. dafa am. jaanib ilmi. dafa am jaanib ilmi. am jaanib mihani. ak jaanib mihani. dafa war a équilibre. dafa xale bi boo ko yar. nee xale bi boo ko yar. war nga koo jàngal. war nga ko jàngal. mu xam ni lii alif la. mu xam ni lii alif lii baa la. lii taala wala boog ni mu ko waxee sànq. wala boog ni mu ko waxee sànq. ni ko izaa zulzilatil ardu. ni fa izaa zulzilatil ardu. wala nga ko qul huwa allahu ahad. wala nga ni ko qul huwa allahu ahad. loolu jaanib ilmi la. loolu jaanib ilmi la. da nga xam. nee da nga koy jàngal xale bi pour mu xam. bu ëllëgee boo ne ko liiral lii. bu ëllëgee boo ne ko liiral lii. mu mën ko liir. waaye itam. waaye itam. jaanib war ko jàngal métier. war jàngal métier. ni mu ko waxee sànq. ni mu ko waxee sànq. ni lislaam bëggul yambar. ni lislaam bëggul ko yambar. wax na dëgg yonent sallallahu dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko wax. wax na sax benn xadis. wax na sax ci benn xadis. al ilallahi. min al mu'mini daif. kon boo koy jàngal mu xàmmee moo yeeg saar yi. booy jàngal xale bi. muy xàmmee moo ak saar yi. war nga ko jàngal itam métier. war nga koo jàngal itam métier. ba ci sànq li mu wax ci wàllu éducation ci wàllu sax programme leen ñuy def ay match. ba ci li mu wax léegi nii. ci jaar ji sax nga jékki-jékki programme leen match de football. yaa ngi koy jàngal muñ. yaa ngi koy jàngal muñ. yaa jàngal règlement. yaa ngi koy jàngal règlement. yaa ngi koy jàngal itam euh, euh, wut dafa war a wut. dafa yaa ngi ko euh, yaa ngi koy jàngal tamit mu muñ. patience a asabr asabr. loolu lépp yooyu yëpp. dugg na ci dugg na ci. man maa ngi ko doon teewlu. ne man papa Abdou maa ngi doon teewlu waxtaan wi bu baax a baax. bu loolu amul. ne su loolu amul. dafay am xalal. dafay am xalal. ni mu ko waxee ni xale bi war na jariñ war nañ ko jariñ ne li mu waxee ni xale bi war nañ koo jariñ mu nekk ci daara ji ñu di ko taxaw di ko dimbali waaye war nañ koo jàngal itam moom dafa war a jariñe parce que yii bu amul rek ne bu amul dafa am yu bari yuy des moo tax waxtaan bi daal am na solo trop moo tax Cheikh Seydi Hadj Malick wax ni. moo tax maam Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu wax ni. ne ci wàllu jeunesse bi la doon waxal. ne ci wàllu jeunesse bi la doon waxal. alaa yaa bani haza zamani. alaa yaa bani haza zamani. zamani. zamani. daawtukum. daawtukum. li ixyaai culuumin. li ixyaani culu. li ixyaani diinin. li ixyaani diinin. bil culumi. bil culumi. ajiibu. ajiibu. yéen jeunesse bi. yéen xale yi. seen mbokk Cheikh Seydi El Hadji Malick man seen mbokk Cheikh Seydi El Hadji Malick maa ngi leen di woo maa ngi leen di woo ngir ñu dundal diine ngir ñu dundal diine mel ni dafa am question bu jógee foofu. mel ni dafa am question bu jógee foofu. ñu ni ko lan lañ koy dundalee. ñu ni ko moo Malick lan lañ koy dundalee. mu ni bil ulumi. mu ni bil ulumi. ci xeeti xam-xam ci xeeti xam-xam yi. waxul rek ilmu diini. waxul ilmu diini. maanaam jàng rek fiq. maanaam jàng rek fiq. wala laxdari. mbaa laxdari. non non déedéet. bil ulumi la indi. bil ulumi la indi. xam-xam yëpp dugg. xam-xam yëpp dugg. médecine. médecine. astronomie. astronomie. yeneen ak yeneen yeneen ak yeneen. yëpp dugg ci. yëpp dugg ci biir. li marabu cheikh doon wax ni. ne li marabu cheikh doon wax ni. dëkk bi du mën a jag. dëkk bi du mën a jag. lu dul lu dul. médecin bi dugg na. médecin bi dugg na. bolok bolok. def opération def opération. pare pare. jàpp changé yéreem. jàpp changé yéreem. mën dugg ci jàkk ji mën a dugg ci jàkk ji jiite. parce que affaire bi noonu la demee. ne affaire bi noonu la demee. ko defee foofu rek laay yemale su ko defee foofu laay yemale kàddu yi. di ziare soxna jaariya. di ziare soxna jaariya. soxna saadiya. ak wayjur yi toog ak wayjur yi fi toog yëpp. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha. si. Thiès. bu sam pap Serigne bu sam pap Serigne Sine. di mag nag ci sëriñ Seydou. bi nga xam ni moom la Thierno Ahmed doon tudd léegi. nga xam ni moom la Thierno Ahmed doon tudd léegi. ne mi ngi ànd ak alxaaji Moustapha Tall maam Abdoul Aziz moo ko yar ca Jaksaaw Tiwaawan ay numaani noonu lay nekkee fële lay nekkee Dakar tamit ca Medina. yow mii di Alxaaji Mbër. ne di Alxaaji ci Abdoul Aziz Mbaye. Alxaaji Bokar Si. Alxaaji ñoom ñi ne ñoom ñi ay euh, jeunes cadres lañu. ay jeunes cadres lañu. ñoo ak ak benn groupe boo xam ne ñoo nekk noo woon fële ca université bu Dakar. nee ak groupe boo xam ni ñoo nekk noo woon fële ca université bu Dakar. comme ñuy wax du mat dañ koy njëkke lu manqué ñu mottali ñu di nuyu ñii ñu fi fekk ñépp xam naa dañu nii dama ñëw ci turu maire Babacar Diop waane dama ñëwaale sama tur man tamit. ndax euh, fii ci ginnaaw ajjuma buy njëkk ci weer bu ne dañ daan def léeg-léeg ñu ñëw di fi defe suñu xaratal juma euh, jàkka jee ci ginnaaw Ablaye jàll mi dañ fay jiite Habib Fall mi nekk délégué de quartier fii moo ñu moo ñu yar moo ñu tàggat bi ñuy nekk di liggéey kon bu ñu kon bu fii xewlee gaa dana ñëwee turu maire waaye tamit dañuy ñëwale suñu tur ndax ñooñu ma wax ñooñu kenn ku ci nekk xaw nañoo war a mën a woo nañu kaay leen ci bés bi euh, beneen bi ci des muy euh, suñu benn kolek boo xamante ni ni xëy na du bëgg ma tudd tëram mais dinaa ko tudd moom mooy yore toutes les questions religieuses au niveau de la ville de Thiès adjointe au maire la programme religieux bu am ci ñiy dem di représenter Babacar Diop le docteur Babacar Diop ci lay bokk muy Khady Diakhaté fii la dëkk kon casquette yu bari lañ fi ñëwee. Euh, xaale bi ñu waxoon ni day tari tamit suñu jarbaat la suñu doom la euh, pour bañ a guddal man sama mag bi xam ne nii ci moom laa toog ko fii la juddoo bàyyil xuja bàyyaan la juddoo ñu toxu dem si Resangor man ma juddoo foofu kon war naa mën a ñëw fii bañ a représenter monsieur le maire mais comme moom laay représenté ah dama leen di jottali yoom jottali leen ngantam ndaxte xëy na daje bi du daje politique waane daje politique la aussi parce que yéen jàngkat yi yéen ni yonent bi salaa salaam nee na baax na parce que mooy nu ñuy saytoo nu ñu doxale réew te moom daa bokk ci ñi samp ndëndëm ne daa bëgg a diriger réew mi daaw Thiès la doon campagne daawul génn fii mais comme léegi nee na daa bëgg a jël Sénégal day teg tànkam fu bari ci réew mi loolu moo tax tey mu am programme boo xam ne nii tëggoon na ko keroog bi ko madame la maire Khadija Khada seetee daf ko ne woon lu ma xat xat xat dinaa def le tout ba aménager ay heure pour mën a ñëw fii mais yàlla dogal na tey ci suba ay booru 11h ci la may doog a wax ni dootul mën a ñëw c'est dire que donc moom amoon na intention ñëw euh, di wax tamit ne xam naa li ñu naan sëriñ yi moom ay kilifa lañu te mooy dëgg aussi. li ma bind li ma bind fii bëggoon koo wax moom la sëriñ bi wax li ma bind mi ngi nii boo boo ko neexee mu téye fëy bi fëy baa ngi nii li ma naroon a li ma naroon a wax daf cee dawal lu baree baree bari ki ma jox micro bi dellu ci muy accompagner jàngukaay yi ak accompagner ñiy jàng jàngukaay yi muy daara yi eh, dañoo am maanaam seen intendance liy doxal liy doxal daara ji maanaam ci wàllu yoru daara ji maire yi am ci ay ay xalaat yu yaatu ndaxte daara yu ci bari danañ utiliser courant danañ utiliser ndox te loolu ku leen ci jàppale euh, intendance bi dana dana yomb maintenant démb madame le maire toujours Khady Diakhaté moom moo waroon a piloter délégation bu jóge woon Allemagne pour dem visiter benn centre buy def énergie solaire centre boobu dafa ne dafa bëgg fépp fu ñu soxla installation solaire mu jàppale ñu ci du ñu ñu fay dara te bu ñu sañoon comme Babacar Diop moom ndongol daara la ci daara la jóge bilaal gi la jànge loolu buñ ko dee démarré duñ ko démarré ci ay kër duñ ko démarré ci ay bureau ay daara la ñuy sélectionné démarré ko dafa leen installation solaire bu laajee bë bët forage boo xam ne nii pompe solaire ak koy doxal ñu defal leen ko expérimenté nañ ko gis nañ ko mi ngi dox ki koy yor sax fii la dëkk eggaloo la dëkk wele ñëpp xam nañ kon loolu c'est du concret c'est du palpable ñu bëggoon loolu bu ñu ko dee démarrer na ci daara yi ak jàkka yi ak jumaa yi jiitu ak église yi parce que docteur Babacar yooyu xam ni maire malheureusement ou heureusement maire amul maanaam kenn du ko xeetale fenn ne ci xeet bi la bokk wala xeet yëpp la boole représenté xeet yëpp la boole représenté euh, diine yëpp la boole représenté nit ñëpp la boole représenté muy góor ak jigéen bref ci gàttal beneen bi ci des mooy ci wàllu formation bi centre boobu ñuy wax dañuy former ay xale boo ñëwee ñoo lay jox paas ñoo lay jox añ boo fa yendoo ñoo lay forme jox la matériel ba pare jàppale la nga monter sa GIE boo amee installation booy defe ñu accompagner la abal la matériel nga dem ci village yi wala fend foo ko bëgg a defee fi may daaneele parce que on on me jullee ngi jot am beneen programme boo xamante ni nii Penda Diallo moo ko yor suñu collaboris collaboratrice la au la mairie c' pour daara yi comme ni ko sëriñ bi waxee sànq au ñu bàyyi xale bi ba muy génn carrément pare njàngam te du am formation moment bi muy nekk apprenant di jàng alxuraan di jàng nekk ci daara ji programme boobu def koy jël en charge mooy seet formation bu mu bëgg def ñu jàppale ko ci kon euh, li olof di wax li duuf ci nag bi xajul ci cin li malheureusement kon euh, ñu daaneel foofu di wone rek ne mbégte bi ñu am ci teew fi en tant que Thiessois d'abord mais aussi en tant que représentant du maire le docteur Babacar Diop qui a empêché et que nous souhaitons que la prochaine édition de cette cérémonie en tout cas se tienne dans de meilleures conditions parce que la contribution que nous avons amenée avec nous nous savons qu'elle est insuffisante